jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak ñun ci Yegle TV bisimila kon ci xibaar yi ñu tàmbale kook lu ñeel ngornement bu bees bu président Macky Sall daanaka seetlu bi benn la moo di ñi nga xam ne ay transhumance la ñu maanaam dañu jógewoon ci opposition bi dem ci pouvoir bi ngir jàll di ko jàppale ku ci mel ni kon ay Aïssata Tall Sall bal de ba ci kii di du jàñ Fada maître El Hadji Diouf ñoom ñëpp amul kenn ku ci am ndombal tànk jëwrin ci jamono joo xam ne ñu bëri ci ñoom dañu jógewoon ci kujje gi ni ñu ko waxee dem ngir jàppale candidature am rek kon laaj bi sampan di waxtu bi mooy ñëw ñooñee nga xam ne kon amuñu ay ndombal tànk lañ moo nar a nekk seen ëllëg ci mouvance bu présidentielle bi Seynabou Ndour bëri nañu lool ñoom ñi tukkee ci opposition bi wutali Macky Sall ngir jàppale ko ba mu mën a faluwaat gannaaw bu ñu fësalee gouvernement bu bees bi amul kenn ci ñoom ku ci bokk laaj bi samp nag moo di lan moo nar a nekk seen avenir ci biir parti bu Macky Sall ndax wor la wala ndax dañ leen a beddi ak lu ci mënti am gëmoon nañ ni rupture dina am ba gouvernement bu bees toogee loolu yëpp furaas ni daal di xëddeen dara amu ci mu mel ni liggéey ak Macky Sall am li nga bëgg góor si nitu boppam la dara sonalu ko mu mel ni nguur warul am xarit li ko soxal rek mooy bëgg-bëgg askan wi ba tax dafa mel ni amul allié doxalinam ak xalaatam bu ñu ci tënkoo dafa mel ni am na ñi mu bëgg faagaagal ci wàllum politique waxtu bu ñu toll ni nag président de la république Macky Sall bëgg na dakkal transhumance bi ngir mu doon loo xam ni dootuñu wéy di ko gis ci langum politique bi ci yu magal bu daru muxti dimas gi ñu wessu ñu ngi don amal ab colloque ngir waxtane tem bi njël bi la at nak modi kon kon mam cierno Cerno yi mbacke ci ko Cheikh Ahmadou Bamba khadimul Rasul mi ko murit ginnaw rek biñu ñu ne kon waxtu bi dik na ci jamono jëñu ko soxla won buñu sukkandiko sukkandikoo conseil départemental bu Modou Fada dal di japp ne jamono ji magal bu daru muxti nek na lo xamne ne yematul senegal way dañu ko ragne ci aduna wërngal képp yeeg Abi Diallo ma fa teewoon ak Almami Fati ci caméra bi. wàccaayu màggal Daaru Muxti ñu ngi koy amal ci anam bu mucc ayib. ci noonu rekk lañu daal di amal ab colloque niki dibeer bi ñu weesu ngir waxtaanee taxawaayu maam Thierno Birahim mbàkke ci yoonu murit bi waaye itam ay jaar-jaaram ci loolu rekk la yi di président du conseil départemental bu Kébémer daldi ci àddu te di wax ni li ni mel. lu jaadu la. borom Daaru Moxti ni ma ko waxee sànq euh, liggéeyam ci biir euh, Sénégal liggéeyam ci biir euh, diine ji. Mhm. liggéeyam ci biir yoon wi. Mhm. dafa yemul rek dëkk bi ñuy wax Daaru Moxti. Mhm. borom Daaru Moxti tey foo dem ci Sénégal foo dem ci Afrique foo dem ci àdduna bi njabootam mu nga fa di ko noyyee di ko déglu di wéy ci ay njàngaleem. Euh, waaye euh, liggéey bi. Mhm. itamit mhm. dafa nekk lu nga xam ne euh, waa Daaru Moxti war nañ koo jëriñoo murid di war nañ koo jëriñoo waaye jàpp naa ne jullit yëpp yi tamit war nañ koo jëriñoo. te bu ma mhm. tuddee jullit yi génn génnaat naa Sénégal. kon def benn colloque def benn waxtaan ci jaar jaari borom Daaru Moxti. ci liggéeyu borom Daaru Moxti loolu dafa nekk lu nga xam ne lu jaadu la. ci lu soxal màggal gi nag Modou Diagne Fada mi ngi ñuy xamal ni ab événement la bu weesu tolluwaayu réew mi. màggalu Daaru Muxti nekkul màggal bu nga xam ne dafa yem ci département. Mhm. Euh, nekkul màggal bu nga xam ne dafa yem ci commune. Mhm. màggal Daaru Muxti événement national la. Mhm. événement international la. kon la ci aju ak la ci jëm. Mm-hmm. état bi mm-hmm. moo ko war a gàddu mm-hmm. moo ko war a yor ndax euh, noonu la dayoo màggal gi toll euh, noonu la euh, événement bi noonu la toll naam conseil départemental ci ay moyens yu ndaw la ko ci war dana ko ci taxaw dana ko ci taxaw euh, ci wetu population yi ci wetu kilifa diine yi mhm. euh, ci wetu nit ñi mhm. mairie ba yi tamit mhm. la ko ca war dana ko def ci wetu population yi ci wetu kilifa diine yi ci wetu waa dëkk bi waaye jàpp naa ne soxla yi nga xam ne moo aju ci màggalu Daaru Muxti soxla gouvernement la ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñaar Daaru Muxti dina dajale mboolem murit rawatina bépp taalibe Maam Cerno Birahim Mbàkke ndaamal daaru nekkoon kenn ci soldaaru borom Touba di fondateur du mouridisme waxtu wi ñu tollu tembe lii di sald de massage yi mu di bërëb yi nga xam ne kon ñu bëri ñu yëg coono ci seenuk yaram foofe la ñuy dem ngir mën a dàmpu gis nañu ne daal ñu ngi ko fii amal bu baax a baax te itam askan wi dañuy riir wutali ji ko ndax daanaka euh, si kii malakandoo foo laal rek day métti yaramu màgget la coono gi bëri na ci askan wi yëpp ñenn ñi nga xam ne nag dañuy dem ci salle de massage yooyee tàmm nañu ko lool ngir yeesal seenuk yaram di daal di dénk kon suñu reporter la leen fa yóbbu ak it lan la ñu cay am ni yëg-yëg boo xam ne dañuy jàpp ne kon coono gi nekkoon ci ñoom mu ngi wàcc bu soo Fatou Diop Sall. massage nekk na mbir mu am solo lool ci yaram ndax dina tax sa yaram bàyyeeku sa xel daal di féex waaye tam mën nañu koo jàppee li nga xamante ne dina la jox wér-gi-yaram saa su ne. ndaw li nga xam ne da yëngu ci massage di wuyoo ci turu Eduardo Babacar dellu di ñu xamal njëriñu massage. massage bi maa ngi koy gisee si si lu baax parce que am na ay doomu aadama yoo xam ne dañuy dugg ci liggéey. te liggéey boo koy da nga koy def ngir yàlla tax te am na ñoo xam ne tey sonn nañu feebar nañu war na leen mën a dimbali te yàlla tax man de sama loxo bi ci jëm sañ sëñ Babacar Si laay wax bu fekkee liggéey bi may def maa ngi koy liggéey parce que je viens de me convertir en waaye maa ngi sant sëñ Babacar Si bu baax a baax waaye liggéey boo koy def da nga koy def ci ak fulla massage dafa louche ñu bari ñu ngi koy wax mais bu fekkee massage dong dong dong dong nit war nga ko mën a defal massage ci teggin ci respect respecter client bi loolu mooy tax mu naw la loolu mooy tax ëllëg ak foo munti nekk mu fekk la fa parce que tubaab da nga koy fekk tey ci clinique am wala nga fekk ko ci salle de massage am mu defal la massage correctement les drainages de lymphatique les nerfs sciatiques quel que soit alpha et cetera et cetera ñu defal la ko nice tranquille doo ci am benn problème mais nag sénégalais y a des personnes yoo xam ne dañuy yàq liggéey ci bépp fan boo munti nekk am na ñoo xam ne dañuy yàq liggéey des fois nga nekk xale boo xam ne jeune wala nga nekk benn kilifa boo xam ne yaa ngi liggéey sa wàllum liggéey ñu war la ci mën a jox cër ñu war la ci mën a jox maanaam fulak fayda koo ci gis nga dimbali ko yàlla tax parce que massage dafa nekk loo xam ne dafa baax ci doomu aadama tey di nga gis xale bu jigéen bu nekk en état nga war ko maase tànk mi dina néewee da nga ko war a defal massage des fois doom bi daw doom bi da nga war a delloo tout ça man mën naa ne formation bi yàgg naa ci yàgguma ci waaye yàlla may na ma ci. Daouda di am ndaw ñu dajeeg moom mu di wax lu ni mel. waaw massage moom baax naa parce que surtout très souvent bi gis naa ñu koy def te dam ko doon seetaan si net bi aussi bon dafa day day wàññi lu si yaram quoi te day yaram aussi da gis ni gars yi di koy def yaram bi feex boo sonnee aussi boo demee si massage ñuy def massage yi dinañ la def massage bu am solo tu vois. Eh, yaakaar naa di nga am yaram bu nooy daal. waaw waaw waaw ça existe parce que dëgg déjà dama koy dëgg ñu gars ñu ko parce que ñu ne gars yi bu ñu demee am na lu ñuy def lu dul massage te yaakaar naa bu ñu waxee massage moom dañuy def massage tout court dañuy yem foofu daal waaw yaakaar naa mooy loolu mais loolu day tax sax boo ñu bëri léegi duñ bëgg a dem def affaire massage parce que dañuy yaakaar ne bu ñu demee gars yi. dañuy def lu massage daal moo tax vraiment bon ñi koy ñaawlu quoi vraiment di ko di gën a ñaax gars yi ñu koy def ñu gën a rafetal seen bopp quoi xam nga mën a sensibiliser gars yi xam ne dèjà loolu amul quoi lu leen di tuumal noonu dèjà amul parce que liggéey bu nekk nit ki bu koy def da ko koy gën encroiser mais bu ko découragé quoi daakaar yaakaar naa loolu laa xam quoi. ginnaaw rafetlu bi ko ñenn ñi rafetlu ak jafe-jafe yi ñu ciy faral di nemmeeku loolee taxul benn yoon ba nekkul lu baax ci suñu wér-gi-yaram waaye tam dina defar li nga xamante ne moo di tension musculaire. communauté sénégalaise ba yeewoo ca gànnaar mu di Mauritanie ñett ci ay semaine a ngi nii kon dañoo gis ne daal jafe-jafe am na dem ci doomu bitim réew ya fa nekk rawatina sénégalais ya ci anam gu ñuy dundee te dëppoowul ak yoon ñu jàpp ne kon situation bébé ñu ngi koy dund jëlee ko ci atum 2012 ginnaaw rek ba ñu daal di woon samp ab sart boo xam ne kon day joxe. mbooleem doomu bitim réew buy wàcc ca suufu gànnaar mu di Mauritanie faaw nga am lii di carte de séjour ci jamono joj ñoom bi ñu doon amal ab manifestation pacifique daal dinañu sàkku kon ci ki nga xam ne moo di président de la république bu Sénégal di Macky Sall ak naataangoom bu Mauritanie di Mohamed Ould Abdel Aziz ngir ñu daal di ci duggal seen loxo ba daal di leen yom mën a yombalal lu jëm kon ci lii di carte de séjour yi Aminata Ndaw daal yi féete biir dëkk ba te dara waralu ko lu dul ay membre yu fa nekk ci biir ndaje bi lak ñoom doomu sénégalais yi woon nañu ñaari njiital réew yi di Macky Sall ak Mohamed Ould Abdel Aziz ñu waxtaan ba seen dundin mën a coppeeku ci ay bis yu ñu weesu ambassadeur Sénégal bi nekk ca Mauritanie di son excellence Mamadou Tall xamle woon na ni yëgal na waa responsable communauté sénégalaise yi ni nguuru Mauritanie dinañ amal ab campagne ngir sensibiliser tey it fexe ba ku ci nekk mën a jot sa carte de séjour waxoon nañ ni du yomb ñu jot seen i carte de séjour yooyu ndax étranger yu bari ci secteur informel bi la ñuy yëngu loolee waral groupe bu takku bii di ay doomu Sénégal ñu lëkkaloo ci ak fédération des associations ak groupement des sénégalais bu nekk ca Mauritanie ñoo amaloon ndaje bu takku bi ci dibeer bi ñu génn ngir yëgle mbir mi le ñoom ñi le sax ñi ngi woo ñi ngànk nguuru Mauritanie ñu tàmbali defar formalité yi ba ku ci nekk mën a jotaat sa carte de séjour. loolee moo xew lay doon ñu ànd ci ak Seynabou Ndour Cameroun la ñu koy ubbee foofee nag lu toll si ñeenti fukki defkatu ñaawteef yu bokk ci secte bu terroriste bu ñu duppee Boko Haram lañu rek daal ah, teg loxo yóbbu leen ca Maroua nekk ca bët gànnaaru réew ma bu ñu sukkandikoo ci ay sources sécuritaires ah, ñu ngi leen teg loxo nag ci bi ñuy amal ab opération ci week bi ci ah, takk der yi jiite ko yooyu la opération nag tax na ba ñu mën a teg loxo yi tamit ay kayit yu doy waar ak yi bu ñu réew ma wutali diwaanu Centrafrique commissaire bu Union africaine yore wàllum jàmm ak kaaraange di kii di Ismaël ak secrétaire général adjoint bu Nations Unies yore wàllum jàmm di Jean-Pierre Lacroix di Jean-Pierre Lacroix egsi nañ ni ki démb ci dimanche bi ca Bangui li leen tax a jóg nag bokk na ci booloo liggéey ngir dëggal accord politique bu ñu xaatimoon ñeel jàmm ak juboo ci réewum Centrafrique boobu la ganase nag dina am ci diiru ñeenti fan dina doon nag prox ngir ñu boole seen doole ba boobule accord mën a yemb ndax ñu ngi ko xaatimoon ni ki juróom juróom-benn fan ci wéerum février ci diggante gouvernement bu Centrafrique ak ak fukk ak ñeenti groupe armé ya fa fare ci loolu nag ñaari naataango yooyu nag dinañ dem ci altine ji ak waa gouvernement ba ci diwaanu Bangui ci dund Europe la koy jeexale foofee réew yu bokk ci Union européenne daal dinañu nag nangu ni ji ci altine ji ubbi tekk négociation commerciale yu soxal États-Unis ca jamono boo xam ni réewum France dafa bank ay yoo ne du ko wote ab source bu tukkee ca Europe réewum France dafa wote woon contre réewum Belgique ca wàll wi daal di rek banque ay yoxo moom itam ci bi ñuy amala yooyu la woteek ngir nangu lancement négociation yi nga xam ni sabab li rek mooy ndiku ab guerre commercial ci diggante Europe ak réew yu États-Unis loolu nag moo fi gënoon fës ci xibaaru bitim réew. ginnaaw xibaaru bitim réew yooyu wàllum tàggat yaram la ñuy utali ji ñu ànd ci ak Yankoba Gueye. sa Angleterre chogu weekend bi. digënté Liverpool ak Chelsea Liverpool mujj na jël raw gaddu gi gone Jurgen Klopp yi nga xamni ni ñoo dominé match bi yépp mujj nañ am ndam ñaari bal ci dara Sadio Mane mu mo ñëk duggal Mohamed Salah dogali len ak bii bu Liverpool mo nekk ci bop classement bi sa kanam Manchester City mi nga xamni amna match de retard Manchester City nak mom tamit amna ndam ci wam ak Crystal Palace ñetti bal ci ben ci ñetti bi yoy Raheem Sterling mo ci taal ñaar di gën a firndeel forme bu mu nekk instant yi ñu dem sa Italie Serie A Naples duma na Chievo Vérone ñetti bal ci benn tomu Sénégal bi di Kalidou Koulibaly taal na ñaari but ci jongante boobule. Naples nak mo nek ci ñaarelu place ba sa classement championnat ba. mbettel sa Ligue 1 France Paris Saint-Germain mi nga xamni ben match nul la soxla won pour nek officiellement champion bu France. dumay reuy la que Lille duma juróomi bal ci Ben Nicolas Pepe mo mo nekkoon jour buñu gëna gën ci match le ak ben but te joxe ñaari passe décisive. xibaaru tagateram yaram kon mbokk yi moo jeexal xibaar ci Yegle TV mbekté mu yaatu la mon ngir fram fàcceel len ko jaajëfal bu baax itam équipe technique bi jàpp ci liggéey bi almaami fati ci caméra bi.